xam la mu leer na ñi seen waajur xam nga yëg nañ ko bañ koy def wala yëguñu ko yow da nga def benn mois yow man maanaam man ba ma seetaanee vidéo man dama tiit dama maanaam dama naan dama ne dee lii du dëgg quoi lii du dëgg xam la maanaam booy xeet bi maanaam fan lañ koy gisee xam la fan lañ jaar ba mën def lii yow da lay jaaxal xam la seen parents instant ban taxawaay la ñu war a taxaw pour pour lii nii yow da leen di jaaxal yow sa bopp yow sa bopp da lay jaaxal xam la léegi yow comme maanaam man instant dama ne benn moment man Sénégal sax dafa ko benn moment yow Sénégal dalay dépassé yow dalay dépassé parce que affaire yi fi am yow dalay jaaxal quoi dalay jaaxal problème boo jógee rek xam nga après da gis beneen bu gën a garaaw boobu la parce que temps est passé ñu ngi doon wax non kaaw góob Jóob Isaac xam la nga ñëwaat kaaw rangu ñëw xam la nga ñëwaat lii ñëw teg tegawaat sa kaw xam la léegi man dañuy am problème suñu jigéen ñi ñoo seen taxawaay seen sëriñ ñoo wala góor ñi xam la ñoo pervers xam la mais mais en fait loolu la ah, barki yàlla loolu la. yéeme na. d'une part da ngay da ngay da ngay da ngay naan loolu booy dañoo feeñ la waat tey rek mais loolu ce sont des faits yoo xamante ne dafay am di am di am di amaat gis nga loolu Moussa pour faj ko dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg état bi da am part de responsabilité parents yi am si part de responsabilité gis nga gis nga gis nga booy xale xale xale xamul xamul xamul wax yar la xam gis nga gis nga fee yooyu noonu ba mu fi amee da ngay gis ñu ne booy ah interpellé nañ leen jàpp nañ leen après du am suite jàpp nañ leen du am suite gis nga gis nga réseaux sociaux jamono jii ne dafa am gis nga fee précédent fee fee yi nga xamante ne moom moo amoon bu nu bu ko bu ko bu ko état bi sanctionné woon ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko def ñu sanctionné leen sévèrement ñu sanctionné leen laa la wax sévèrement mu jàll ci réseaux sociaux yi gars yi xamante ne ni xale yi nga xamante ne ñoom ñoo defoon lii lii moo leen fekk si booy bu ñuy def lii dinañ moytu booy dañoo feeñ feeñle rek de mais boo xoolee presque mun naa la wax quatre-vingt-dix pour cent booy chaque samedi chaque jour laa la wax ni lu raw yi dañ koy dund ci ñi nga xamante ne ni moom mooy si biir fu ne boo demee obergie yi boo demee si si si hôtel yi laa lay waxal nii doo fa fekk ay mag doo fa booy yi ñoo koy feesal dell dell dell. mineur gis nga ñoom ñëpp booy yi ñoom ñëpp seen biir nekkul comme par exemple détournement de mineur benn mag comme bu la Diop ISEG bi je suis d'accord loolu détournement de mineur mais booy yi ay xale yu ndaw lañ. la période yu ñu toll nii parents yi seen jëm bopp ñoom ñoo yaratul seen doom yi gis nga ñàkk yar boobu noonu day dem ba nga xamante ne day feeñ ci lépp parce que gis nga boo amee sa doom bu jigéen is naa déglu jigéen da nga yar malgré parent bi mun na yar yar yar yar xale bi bu génnee sibiti am na beneen yar boo xamante ne da ko ci da koy fekk sibiti mais boo boo xoolee dëgg dëgg dëgg dëgg affaire bi base bi la gis nga boo amee sa doom période yi ñun ñëpp dañ koy dund nga gis parent boo xamante ne day am doomam doom boo xamante ne ni du am sax 18 yi du mot kooku mooy yor lépp ci kër gi. waaw man moom. xoolal ma yeggali rek. Euh. kooku mooy gérer lépp ci kër gi. day ñëw balaa moo tëdd si rek. ay xaaj xaaj guddi koo xamante ne ni elle n'a que 18 ans wala 19 ans buy ñëw àndaale sandwich yaayam wala hamburger yaayam wala xaalis yaay yu fu mu yaay ju du ko contrôler du ko def dara mais kooku noonu fan lay jëlee loolu noonu genre genre yii nii rek rek rek rek rek moom mooy andi loola. Ah. dafay xaw a doy waar mënoo ko analyser man peut-être dinaa dina dinaa bett ñu bëri mais booy dama leen di féliciter maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que wane ngeen dëggantaan jaay xale Sénégal xal nu ñu mel c'est-à-dire yi nga xamante ne ñu ngi ko doon def. di ko nëbb gis nga Papis da ko doon wax ma koy contre naan ko li ngay wax ni kenn ko wax ci émission mais loolu dafa nekk dëgg dañ nekk si dëkk boo xamante ne dafa bëri fen au moins xale yi wax nañu dëgg quoi war nañu dëggantaan njaay ñoom lan la ñuy dund ak seen morom yi lan la ñuy dund parce que yàgg nañ di dégg ay bain de nuit ay piscine party lan moo fa am lii moo fa am léegi tamit responsabilité parent loolu dafa yomb wala responsabilité état dafa yomb dañ nekk si benn société boo xamante ne dafa feebar à tous les niveaux soo soo déggee ñu ne dafa feebar à tous les niveaux mooy est-ce que xam nga ne tey affaire bi garaaw na ñu ngi ciy wax dugg na fi génn fii mais soo xoolee ci mois de ramadan bi yëpp affaire yi fi am li xale yi def moo gën a ñàkk fayda affaire yu gën a garaaw loolu rek moo fi am xam na yoo xamante ne ci ay ponkal la jóge ay mag la jóge boo xama sax ay mag de ay kilifa ay ministre ay député comme la dëkku foo la ñu nekk parce que duñ ne ay xale ñoo def yëfu xale comprendre nga si si niñ leen yaree ah ñoom wàcc nañ xam nga barki Demba Ndiaye lañ fi gis xam nga ñu tudd si plus de mille milliards xam nga ñu tudd si ay kilifa yoo xamante ne ñii ñu ngi doon yóotu ñu jox leen suñu réew ñu gouverner ko xam nga ñii ay ministre de l'état la woon xam gis nañ fi ay député yoo xamante ne ñu ngi leen tudd si affaire de faux yi xam nga. ay waaraatekat ñuy tudd si affaire de affaire de affaire affaire de yu kenn xamul comprendre cest à soo xoolee yooyu yëpp danay jàngalaat ñun dañu nekk si benn société boo xamante ne dafa feebar mais dañ koy yi ba mu rafet xam nga di la ko présenter comprendre mais loolu dafa nekkul comprendre mu la santage bi nga xamante ne moom mooy am parents yi bi ngay wax naan moom moo war a yar xale bi xam nga wooyu yu bëri ñun xam nañ nan lañ leen amuñu jot lan moo tax amuñu jot bi dañuy liggéey. ñu ci bëri xam nañ ne xale jigéen ñi pour ñu liggéey nan la yan chantage lañ leen def pour embaucher leen ñu dem liggéey comprendre te tey jii quoi qu'on ay xale ñoom ñoo ko def xam na affaire yu Iba bi amoon temps yi passé fii la fekk foofu moor doom moo am te drogue lañ doon use drogue dure lañ doon use ba moor doom am xanaa loolu moo gën a garaaw xam nga bug ñu fatt ay xale yi nii nii nii garaawal affaire bi ngandal ko mel ni affaire bi lu am la quoi te loo xamante ne chaque bu ñu yeewoo teg ci suñu bët tamit bu ñu bu sànq loolu laa doon moo tax ma ne la gis nga loolu lan moo leen di encouragé lan moo dëgg dëgg dëgg dëgg moom mooy sanction bi nga xamante ne moom moo ci war a am gars yi gis ko moom moo si amul ba léegi gis nga loolu bu amee gars yi andi ay sanction yoo xamante ne sanction yu sévère yoo xamante ne dañ koy teg si porox ndollu ñooñu gis nga ay déggum la képp koo xamante ne da ngay genre da ngay envisager def loolu sax bu boobaa di nga moytu mais bu ma defee après du mujj fenn moom moo tax dañ dañuy ça encourage vraiment ça encourage ku sanctionné wul mag sanctionné woo kilifa mënoo sanctionné ay xale yu ndaw sax mënul nekk xam nga sanction bi fan la fépp la ci ñëpp buñu bu ñu waree sanctionné si si boppam ah ñëpp la ñu war a sanctionné c'est que man booy booy gars yi dañ leen jox liberté bu bari di nga di nga di nga une jeunesse soo ko occupé wul à la fin lii rek la lay jural ay yenn ay yenn dérive yoo xamante ne mu ngi nii moom mooy moom mooy existé moom mooy am chaque jour dañ koy gis lii lii dafa dafa dem ba dafa doon banaal loo xamante ne ni moo moo nekk léegi man lan laa wax man lan lan lañu war a def ñun maanaam booy dañu war a occupé booy seen parents yi ñooñu la war a occupé mais parent boo xamante ne ne yow yow yaa ngi yow li ngay toog ak sa doom deux heures de temps trois heures de temps te yow ay filmu novela rek ngay seetaan booy bi di ko gis di ko di ko seetaan ah di ci am ay yenn aperçu ah yow nga ñu ñu ñu fóonante nga naan non non parent bi naan non xale bi xale bi moom. day fóonante rek nangam nangam à la fin yow da dem ba benn instant boobu day accaparé loolu day doon day nekk ci bopp bi à la fin moom lay def day yi ñi ñu seetaan ay série série ay ay yoo xamante ne effet de yoo xamante ne day am ci ci télé yeeg genre yoonu gars yi di ko di ko gis booy di ko gis booy di ma moom ma indi yenn yi rek booy lan la ñuy def loo loo jàng rek loo jàng moom ngay tari booy luñ jàng luñ jàng ci télé yeeg ci ci ay série yeeg ay télénovela yi moom lañ tari gis nga lii maa ngi ko doon émission xam nga di ko remercier de passage de passage quoi moom tamit a waxtaan nañ ci keroog ma na ko gis nga dëkk boo dénkaanee sa musique dénkaane sa cinéma yàqu nga ba faw xale yi li ñu leen jàngal la tari dañ leen war a féliciter li ma la wax loolu dès le départ loolu moo fi nekk dañ leen di féliciter parce que li ñu leen jàngal la ñu tari loolu la leen ay Pod et jàngal mais ma mais ma booy ay Pod et Marichou ay wiiri wiiri série yi ñuy seetaan si télé bi lii la leen jàngal loolu la te tari bu ñuy sanctionné kilifa yi lañuy ñuy sanctionné commençant par sa état bi si boppam ñi nga xamante ne ñu ngi leen di tund si si alal bi ay jaayum yàmbaa ci état c'est loolu loolu cest loolu moo jar a wax comprendre la cest à loolu moom moo jar a wax xam nga mais lii détail la par rapport dafa mel ni lii sax ñoom est di moom lu ñu créé la sax pour pour pour divertir ñu tuuti quoi ñu wax si benn affaire bu ñàkk fayda xam nga ñu bàyyi affaire yu am fulla yi parce que yow mënu ma comprendre tey un Farba Senghor ñu tudd la si benn cas boo xamante ne xaw ma tudd la si affaire de faux billets plus de 1000 milliards même pas barki démb nga émission télévision di expliquer ça veut dire mais loolu loolu loolu xel da koy nangu. mais xam nga mais xam nga mais xam nga son Sénégal Sénégal xam nga man naan naan booy ñu ngi leen moom moom moom wax dëgg yàlla moom ah wax jooju moom jarul sax ñu koy wax mais tam benn affaire am xam nga. Sénégal moo bëri problème ba nga xamante ne problème boo laal xam la soo xoolee am na beneen boo gën a garaaw fi nekk xam la mais tamit xam la booy dëgg la quoi xam la ñëpp xam nañ ni fii ñëpp xam nañ ni Sénégal booy yi ñuy dundee ñun ñëpp xam nañ parce que léegi da ngay gis booy sax xam la seen seen statut sax da ngay gis booy buy tox ay buy tox ay ay. lu ne la ñuy tux di ko wane ah, xam te yow bu njëkk ba yow yow bu njëkk ba yow boo nekkee xale yow boo yoree cigarette boo xoolal xool su su su ko tabax boo ko foree sax bu mag ñëwee sa na koy laal mais booy léegi da ngay gis sax xam nga ñuy photo di wane ay tabax ak di kii xam la maanaam loolu xam nga benn affaire est-ce que xam nga benn affaire ça veut dire xam nga tax wax la loolu am na ay am na ñoo xamante ne ay ministre lañ ñu ngi nii ay ministre d'état lañ li xale yi def image yooyu ñu gis xale yi def xam nga ñoom def nañ ko publiquement toog si table di tux ay choucha teg seen i sàngara seen caga wër leen c'est-à-dire loolu laa la wax dama ne la loo xamante ne sa kilifa yow sab xale yi loo xamante ne seen papa yi dañ koy def seen yaay yi di ko def seen état di ko def comprendre nga seen député yi di ko def comprendre la barki des moo Ndiaye gis nañ fi benn xawma colonel lu xawma commandant police jël fi dem man mandi ànd ak ay xale jigéen naan ba man di ba mënatul taxaw tiire doomu jaamur balu pistolet si tànk affaire bi mu jul fenn mais c'est-à-dire bu ñuy wax si yooyu la ñuy wax mais bu ñuy wax affaire ñàkk fayda yi mooy li ma gis nga topp gis mooy li ma a yomb la def xam nga mooy lan accident yi moo wàll Alioune Sall corona moom moo gën a néew doole xale yi amuñu défense moo tax ñu topp xale ndaw yi xale ndaw yi affaire yu gën a garaaw yooyu ñoo fi am te bu fekkente ne dëgg la wax ñun ay dëgg lañ duñu ay naafiq dañuy wax problème bi lan mooy problème bi ku yarawul munoo yaraate munu nekk c'est waa dëgg comme ni nga waxee c'est une dëkk bi dafa bëri fen amul rafetal fen bi dafa yàgg te fen bi fu foo xool di nga ko gis te fii boo laajtee ñu jëlee suñu indépendance li ñu la si teg li ñu la si relater yëpp lu si bëri fen la te jëlal dangay dégg yàgg nañ dégg ñu naa la année quatre-vingt génération sacrifiée tey waaye génération sacrifiée boobu noonu ñoo jur xale yi ah. léegi loo ciy xaar. des gosses sacrifiés da ngay gis dëkk bi ñu nekk di Sénégal étudiants yi exemple dañuy génn di grève pour ñu jot seen bourse dañuy grève parents yi nañ dañoo réew exemple rek laa joxe nga gis par exemple benn pays ba ca France parent yi ñooy génn di gréeval seen doom ba génn bëgg na di dëkk bi fa lay dem ñu manque dëkk bi suñu waxee ñu ŋànk dëkk bi dañuy jàpp ne nii c'est l'état c'est le président le gouvernement mais kilifa diine yi si leen bokk ku nekk dafa war a def lu mu war a def tey jii da gis un mal ku yor oto mal garé mais xam na ne defu ko li mu def c'est pas bon moo ko def c'est pas bon c'est pas normal ñu koy teg daan mu naan day négocier mais lu mu def warul ba muy négocier dafa war a teg daanu mais ku nekk na war a def lu mu war a def. que chacun fasse ce qu'il doit faire c'est simple ñu ne dañuy punir les enfants tu as raison hein? on a on doit les féliciter parce que lu ñu jàng lañ tari c'est vrai hein? on doit beaucoup les féliciter si loolu lañ leen teg ci mbirum école bi ñuy wax mais jamonoy corona bi am na ñu doon jàng école tëj na mais am na ñu doon jàng les privés doon jàng. léegi yéen ngeen xalaat ne ni privé yooyu di jàng état bi dina leen ñëw décréter année blanche les publics vont seront sacrifiés comme que dañ nekk peuple dëkk bi nga xamante ni dañuy négocier naan non yàlla baax na yàlla baax na te duñu def dara si li yàlla déglee dañuy dund fii l'enfer ñu dee dem dund l'enfer c'est simple ñi nga xamante ni dañ leen jox ndoomu tànk muy kilifa diine il faut dire les choses telles qu'elles sont kilifa diine bu fi yëngatu. état tiit pourquoi maintenant seen pouvoir la leen jëriñ mawlud euh, ziara nangam non non kilifa diine yi quoi mooy seen kilifa ñoom ñëpp ñoom ñëpp ils sont animés de la lumière divine kon c'est dit la vérité te lo non defal naa ma ñëw non xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw non damay ñëw maanaam si xale yi lañ nekk mais xale yooyu ñu nekk li yëngu lu ko yëngale ko ëpp doole. xale yooyu noonu su fekkee na nga jëm ci xale yi doo mu a gis feebar bi na koy faje te nga naan état bi état bi état loolu état bi si boppam dafa feebar fekkee ne dañuy duma ñoom la ñuy war a njëkk a dumalee gouvernement dégg nga fi six mille milliards dégg nga fi mille plus de mille milliards de faux billets waaw defal naa rek ma ñëw xaar xaar xaar ma ñëw attends j'arrive attends j'arrive faites doucement li may wax dama koy teg ci lu leer boo demee sa retour Nour tu verras tout cela dedans la fin bon man li may wax rek moom mooy man may delluwaat di ñaaxaat population bi di leen wax que ni feebar bi ba léegi mu ngi fi te léegi la gën a la léegi la waalo gën a aay comprendre nga médecins yi mesures yi nga xamante ne moom lañ moom la ñu wax ku ñu respecté ko gars yi nañ sàmmanteeg moom gars yi nañ sàmmanteeg moom te xamante ne tawat bi mu ngi fi masque yi nekkul dañ koy takk rek ndax policiers yi moom moo tax masque yi dañ ko war a takk ngir aar suñu bopp looloo tax ñun ñu andi mu yi. Eh, policiers yi si lañ bokk policiers yi si lañ bokk parce que dañuy sanctionné mais dama lay wax en personne ku nekk da ngay jëlee boppam que yi nekkul pour policiers yi kese. moom ah, la te tamit wax nañ ci ah. waxaat si mais comme par exemple man li may wax man pour pour conclure quoi moo tax may wax pour wax que ni bi gars yi comprendre te xam ne ni tamit non pour confirmer maa ngi jégalu de. Mm-hmm. masques yi parce que 3000 francs yi 6000 francs yi la daw. waaw loolu pour wax que ni loolu essayant déggum la loolu kese warul tax masque yi boo gisee la moo tax ñu koy sol essayant déggum pour aar ku nekk aar boppam la gars yi population bi nañ dellu xam ne ni essayant déggum la mbas bi ba léegi mu ngi fi gaa yi di ñaan yàlla nag mbas bi mu mu mu jóge fi di wax di wax di wax interpellé Macky Sall di ko wax que ni essayant déggum la lu mu bugg ñu mu dimbali ñu ci li nga xamante ne moom mooy ouverture école parce que ça colle feebar bi situation bi fi mu toll nii si ay déggum la ak nga bëgg naan da ngay da ngay def li ouverture école loolu moom moo waral affaire di gën a deme waaw ñu jéggaluwaat bu baax si. ñëpp xam nga di leen wax ñu ngi rafetlu seen ni ngeen di suivre gars yi di wax comme li Ablaye wax rek feebar bi lu am la na gars yi gën a jël seen matuwaay quoi xam nga et bi xam nga gaa yi dem abonné ji si suñu chaîne xam nga gën a jàpp si affaire bi quoi parce que lii tamit soo gisee ñu koy def c'est pour pour pour séddoo la. xam nga peu de connaissance bi ñu am xam nga ak li ñu jot a gis quoi xam nga si xam nga ak jàpp na ñun daal ci askan bi lañu bokk te xam nga am nañ suñu moo à dire xam nga dañuy wax salaamaaleykum wa rahmatullah jaa ordinaire xam nga def na geste bu rëy xam nga biir Espagne xam nga ñu koy félicité xam nga di félicité képp ki nga xamante ne xam nga yaa ngi jàppale gars yi si tamit mooy li ñuy wax xam nga lii lu ko tax a jóg xam la wax dëgg la mooy ñaaxante xam nga waxtaan xam la ak mi tamit képp ku dimbali population bi